Bango laa nekk Bango écrit Soumbédioune. Bébé Diène bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barke sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi dégg de na taxaw nu jaayante ka ak moom boobu daa ba xeex ak man. ñeme na lu ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kayreet ko xeexloo ak man pour muy leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kayreet ko xeexloo ak man. Ali Mbaye mun na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Aliou Mbaye dogoog Aliou Mbaye la ne na ci bokk yam day toog kër ga bébé bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal kër tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi di incha <laughs> waaye xaali mbay la maa ngi dëgg ngay ndellu rek xam naa sorna si moo la daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire bàyyi ma njoot bàyyi ma la xel sax. ah man ma daan <laughs> jërë ngeen jëf mbokku internet di jàkkaarloo ñun ci lutte tv point com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare seetaanoon ngeen ki nga xamante ne moom mooy Talfa di adversaire wu Mbaye Tine numéro 2 école de lutte Mor Fadam tey ñu ñëw fii ci école bi fekk ko fi muy entraîné ñu fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ne moom la fas yéene am fas yéene jëflanteeg Talfa comme ni mu koy waxee rek gamer bi xam naa ne gamer bi xëy na moom dina ko xam man na xamaguma luy gamer xëy na Talfa dina ko xam waaye mbay Tine mi ko nar a tamit dina ko xam seetaan ngeen Talfa li nga xamante ne wax na ko noonu fas yéene jëflante ak adversaire am Mbaye maa ngi lay bégg bu baax a baax di la ziar bàyyi la nga nuyu mbokk internet bi. auzubillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jaramaam Serafal ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu Serigne seex moo Gueye di santaat suñu Serigne Cheikh Modou Gueye di ñaanal sëñ Mountakha muy yàgg fi lool moo ummil islamique bi yëpp di sant waa Guédiawaye di sant waa école yi ma faram di jiital nuyoo bi Maawo ambulance ak Malal xam nga ak uh, sama nijaay mm, Baba Mal ak staff bi fi nekk yëpp ak Baye Dame waaw. ok comme ni ma ko waxee rek nga am combat mu war a nekk le 30 juillet incha allah rabi sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy Talfa ngeen waroon a bëre le 11 suma ma juumee le 11 juin ngeen waroon a bëre combat bi ñu puusaat ko pour benn un mois quinze jours am na sax ñu jàpp ni loolu. yow dafa la arrangé pousse bi ñu pousse combat bi wala avant ñu koy pousse fekk na Mbaye li mu waroon a li mu waroon a am arme yi mu waroon am pour jëflanteem ak adversaire mi yëpp daje woon. waaw sant yàlla rek xëy na daa war a gën a mën a baaxaat rek luñ ko pousse ni euh, du arrangement euh, sam waa ji du géem. lu leer naañ la arrangé na la. pare naa. pare naa waaw man man wax ju bari des fois du ma ko mën. xam ah. nga xotteeku moom. booy xotteeku rek nit ñi dañ lay jéppi te man ñaanuma yàlla nit ñi jéppi ma te damaa ñaan yàlla la trente fekk ñu fi ba leneen ak feneen ak feneen fekkaat ñu fi bis bi daal nañ ko tal jàmm rek baar bi ne prip hmm. dina dina xam du géem du géem barki du géem waaw rek balaa ñuy ñëw ci géem bi na nga du géem mais euh, combat bi naka nga ko naka nga ko waajal ak sa diggante ak sa adversaire balaa ma ñëw ci lan moo taxawal seen combat lan moo la boole ak Talfa waaw xam nga boo seetloo ba ma génnee ci jara dama am na combat yu bëri yuñ ma wax ma fekk ma yor malaat sama yaay moo feebar ma nekk ci moom IPRES ba yàlla dogal mu génn ma nekk ci yeneen chose di ko di dem boo dégg combat bi yàqu na combat bi yàqu na aw ma leneen lu ma kii ma ne xaar ma jël ko fàtt samay turu mais du leneen waaw. non booleeguñu palmarès booleeguñu mais bu arbine ne prime daal dina xam ne palmarès boolewuñu lamb boolewuñu. ndax xam nga adversaire bi yow a bëri ndax xam nga. moom ngeen doon laaj ndax xam na ma. laaj naa ko xam nga xamuma ma man ma bëri ay dix huit combats ah mu naan ay. di di di ay di génne yeneen feem. naan du fee yow booy feente da ngay feente ay tapet. Mm. mbay du tapet man dama am jaar géej géejuwaay mënoo fee dugg te xamuñu kuy mbaytin ci mbapat nga dem Fissel dem Mbam dem Kër Soose wër ci biir waaye moom ñëw naa koñam dama fa ay ñoom bay Pël xam nga kon moom day xaar oni ngaa ko dàq bëre oni ngaa ba ma ko jàppee Fissel bee doyul waxuma la loolu na teey rek na teey la trente ñëw na luy neex bu ma ko deful du ko def. nee doo fee de. doo kaayit xam nga jour bañ ñëwee yi gis naa ko mu ànd ay buru bara yoo xamante ne di koja koj naa ma ni xam nga booy koj da koj ku amul fit man ñàkk ma fit te man booy bu may dox man kese maay dox góor yebu ma bu may dox barke Seydina Mohamed musuma ragal barke alxuraan dañ ne doomu aadama da ngaa war yaru mais sa fit ne nekk ci yow bar bu ma ko runkaat dina xam ne kiidu ragal. booy yi di wax yëpp ci ginnaaw la ñuy taxaw. non problème bi kay du booy instant bi ñaar la tam moom nee na ak lu mën a xew di nga di nga di nga jël ko. ko bu ma jëlee koom te du ma mooy daanu rek loolu dina neex man wax ji moom nee naa loolu jaru muy bari sama côté man moom li ma mën moom arbitre ne ma def li may def yóbbu géej waay point. Hmm. Talfa du ma téye ci làmb man maa la ko wax du ma téye dama la ko waxaat du ma téye du Talfa moom mooy arrêté ci lambu waaw combat dama ko jël au sérieux nekkuma fi di kii di duggal kaa dama ma maa ngi ko jël au sérieux nekk si lu mu war a nekk point. Talfa mi ngi ci forme de et puis boo gisoo ñi muy àndal ay góor soog ay français daan nga vidéo yi ñoom ñoo koy poussé di ko yokk doole. waaw ah, ñooñu mën nañ kaa yokk doole yokk ko fit mais bu arbitre ne prix dañuy xaar ne le dañuy xaar man lijjantuma sax góor a soog. tey nga bañ a tey nga oyofal yow ba arbitre ne prime ngay xam ne dama kii ay français laa koy làkk waxuma la ay ma njaago du ko may dara de Seydina Mouhamed seere ne duma ko may tarafatal ay ni dara du ma ko may te bu ma ñëwee xam ne woon na buñ simmeekoo maa la ko yow simmeekoogu nit ñi gis nañ la buñ simmeekoo foo jëm naa dugg sa biir tubéy ba nga xam lépp dëgg la kafuma ci reetaanu ma ci sama trayu bàmmeel kafu ma ci reetaanu ma ci combat bi tax na nelawatuma ba doyal ndax nekk ci af samay business bopp ndax combat bi waaw baar bu ne prix mu xam lépp dëgg la. kon combat bi maanaam yow sa bakkan nga teg. sama nafsu laa si teg point. mais loolu tiitalu la ak sparring partenaire yi mu am comme ni ma ko waxee ku mel ne Gora Sock am Franc am ay Modou Lo a ah, ak ñeneen ak ñeneen ay Dame Sène ak Garga 2 sparring yi mu am noonu yooyu loolu du loolu du la nga koy xalaat nga kii kat ñi mu kontaagal ku leen am di nga pare. Modou Lo moom avant moo am ñoom Franc nan la doon demee la doon demee seul ba yàlla dénk roi de seren kon man damay demee sama seul fii maa ngi fekk ñu gën a oncéré ñee xaw ma oncéré xaw correct ñu leen gën a bandi ñu ngi fii ci école bi groupe boobu ngay lim. yaa limoon de. li ma rek yow xanaa ah? kañ nga ragal man mënoo maa mënoo ñebe man mosuma ragal. ñooñu nga lim yëpp déggoo ma de ci fee la ñuy xaar ci ginnaaw barrière la xaar su ma wengaloo mu wengalu <laughs> di nga xam doo bandi sa fee yooyu fee du mbaytin billaa wallaay tallaahi bu tegee xeex mu way di loo ko bu tegee bëri ma ma daan ko jël bu rëy dem ñibbi. yaa ko xeex. maa ko dàq bëri xanaa déggoo ma man jël bu ma daan top 5 la kan la fi daan yóbbu top 5 booy. Eh. doo fee te bu arbitre ne prip nga xam ne doo fee maa la mën maa la ëpp doole dina naa la duma dinaa la daan mu neex la mu naqari la xanaa dégg nga ko jot ko noo dugg sa biir nu nara googu. <laughs> neexaguma damaa xaw a sonn quoi. damaa ànd ak coono gu metti fi mu nekk nii wallahi lazim pas liggéey dama sonn rek tey dama. lu lu dama sonn dama lu nekkoon rek mais yàlla xam na combat bi taxawul sax mooy def bi barki Seydina Mohamed. mais adversaire bi ndax ci diggante bi gëstu nga ko xam ay maninam comme ni ma ko laajee ndax yaakaar naa ne ci professionnalisme la bokk sax nga am combat ngay xool sa adversaire ay maninam ak ay faayam yow loolu dal na la ci wala da def yeneen mbëri rek li jëntu mu lu mën ak lu mu tere man moom bu nekkee dëgg rek sama adversaire mosuma saytu nii lay bëree ak nu mu dul bëree man xamul ma xam. mën na bëre mën naa bëre dañuy bëre te mënul teg ci bëree ci kaw bëre ba romb li may bëre waaw maa ngi koy gis ma ma laks kiri bi ma ne ko laks kiri boobu moo rey ñu bari xam nga kuy bëre mbapat moom du benn laks kiri ngay ñëw daa jëlee tournoi bi waaw laks kiri boobu nag. koy fat. Hmm. ku ko ëpp doole sax mënu kaa wet gi. non maa moom duñu egg wet kii bu mose li mu war a mos rek duñu egg wet bu soobee yàlla te yéen ñi yor seen caméra yi ngande yi sax xam ngeen maa moom duñ fa egg ba mu la tàncee nga xam ne duñ fa egg bilaa walaay. waa Géej waay ni ñu waajal combat bi. moom dama leen bàyyi ak <clears throat> dama leen bàyyi ak Laye Lebo moo yor wàllu supporters yi ñu si xaar ku mel na Lat Diop. parce que waaw Lat Diop doomu Géej waay la. xam nga boot ñoom Oumanga ñoom Baara. Omanga. Ah, ak waaw boot leen ñoom ñëpp ak ñoom Pape Keita mu nekk ci biir géej waaye di def si loo xamante ne kenn gisuma ko mu def ku dul Malick Gakko wala Baydi Sey ñooñu noonu ay ay ay kiiw géej waay lañ billaa wallaay taala géej waay dem si yàlla si da doon jàppale ñu bëri moom Baydi Sey yàlla na ko yàlla yërëm te xarak aljana teg loxo njabootam gi ak maire maire am bi nekk fee maire Diop waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waaye yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sutura di woowaa lavage bi bu baax bu ma nee rek nee naa ñoom Bibi ñoom Habib ñoom Demba yëpp waaw nañ préparé combat bi comme nuñ ko doon préparé bii day raw bii waa ASECNA waa Rompoy Mor Fadam a képp kuy supporter Mbaye Tine rek maa ngi la ciy xaar. maa ngi la ciy xaar borom sareet yi dama ko sareet borom watiir yi tamit noonu marché Ndiarème sëñ Assane ñoom daa Balaye Zar xam nga ñoom Seydou ñu fa nekk yëpp. waa Wotir ga waa Asegna waa marché bu bees waa koñu diwaan tamit maa ngi leen ciy woo diwaan tamit ne sama waay la day jàpp ci côté bu nekk. waaw côté bu nekk ak Kanji. Kanji promoteur ba ma ko woowee dafa ma ne nii loo soxla ma ne ko jàpp ci rek mu ne ma ne xaaral naa la yónnee xaalis. di si woo teel a noonu jéey tamit ne ñu ngi ko ci woo même kii Gambie mii nga xamante ne mbër la comme man damay toog mooy wéef xaalis. kon xam kon. Euh, ñoom ñëpp lamb ji ñor na leen. Talfa de. Talfa daa mos am problème ba mu duggee ci man la am problème xanaa déggoo ma. am na ñu ne ko nag da ngaa juum quoi xamoo ki nga jël. non xamuma sama diggante ak yàlla xamuma. am ñu jàpp tamit moom moo la doole. xam nga ñu moom ëpp doole. waaw ko ni euh, xam nga tiim gën moom di dóor rek di dóor te li ngay dëbb moom wóor na le sa loxo nekk fa. Hmm. waaw yow. <laughs> waaye dëbb say ngaam la. dëbb say ngaam de baaxul Talfa noonu la ko waxee waaye comme li nga wax rek ki nga xamante ne moom mooy Lat Diop seetlu nañ loolu ci mbëru géej waaye kuñ ci tàllal micro rek mu sant ko gërëm ko kon yaakaar naa ni loolu lu baax a baax la ci moom waaye lu baax la tamit ci président Macky Sall mi nga xamante ne tey moom moo ko teg foofu genre Lat Diop bi la ñu soxla bu ñu dëkk boo dëkkee ci gox da ngay jàppale sa waa gox man mosuma tàllal micro benn mbër fii géej waaye mu xalab Lat Diop ay cant rek laay gis mboru géej waaye du ko yëkkati di ko jëmal ci jëmu jooju kon ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy encouragé ci li mu nekk waaye nag di ci nuyu bu baax a baax Omar Mbaye di ko wax na gën a jàppale mboru géej waay ak jeunesse géej waay bi kii am na combat Omar Mbaye kon na ko Lat Diop taxawu ñoom bu sita ñoom ñoom ñëpp yaakaar naa ne am nañ combat am na combat yoo xam ne tamit déwén la jëm yooyu nañ bàyyi ba déwén ñu wax ji mais kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu yokk ba yokk ko aywa ñan ngay woo ci combat bi waaw li ma la wax rek comme woona comme ñu mel na ñoom xaadim fay maa ngi koy ñaanal gorom bi wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana waaw moom jéy naa la xaw ma jabaram yaayam papa ma wàññeeku fële ci États-Unis dégg naa ko mais après dama bougé woon yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ñaanal tamit ne sama gars yi fi am combat comme ku mel na Pambaay mais bu Siteu ak euh, kii booy bee dem waaw waaw dafa am combat. yàlla ko yàlla may ndam. ñu amul combat yàlla bi defal leen combat ñu am ndam. barki yonent bi. guy gi dégg naa combat bi léegi mu taxaw. Hmm, guy gi moom yëgu ma ko moom wax dëgg yàlla. moog Franc. <laughs> mu dugg parcelle. <laughs> loolu de maa ngi dégg-dégg ah, ah. ah, yàlla na ko yàlla may ndam kon mais man de yëgu ma ko moom dëgg yàlla. guy moo coins laa déggoon. waaw ko tey. waaw lépp luy ñëw rek yàlla na ànd ndam rek. yàlla na ànd ak ndam barki yonent bi di ñaanal Bada Mor Fadam 2 mu am combat mu waaw taw féex. man laa nekk bàngoo écrit Soumbédioune. bu ko bëjjën bu fekkee combat benn man fonk naa ko téeméer. barki sëñ Abdou Karim Mbacke boo taxawee dama lay duma boo bëree dama lay daan. bu fekkee gor la rek yaa ngi de na taxaw nu jaayante ko ma moom. kooku daa ñeme xeex ak ko raw. barki sëñ Aliou Mamou booy kareet ko xeexloo ak man pour muy leer. barki Serigne Touba Mbacke booy kareet ko xeexloo ak man. Ali Mbaye mën na toog kër ga. Sidaati mooy ñëw. waaw Ali Mbaye dogoog Ali Mbaye la nee na ci bokk yam day toog kër ga bebe bi ñëw. waaw damay toog kër ga boo xamee na toog kër ga xajal tournoi bi tournoi doom ñëw ak ñeneen ñeneen ñi de incha <laughs> waaye xaali mbay la maay dëgg ngay ndellu rek xam naa sonn si ma wala daggal yàpp ak foie tabaski bi xam ma nga lekk ba suur xëy lënd bi dem saal pompe say affaire baa ma njoot bàyyi la xel sax. ah man day mbër mu xees ma daan de. xees na pecc de. <laughs> mbër mu xees ma daan te gars yi nag mbër mu xees.